صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا هن ما الأبصر السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد عن النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي هلي سلاما من لو اكتب سفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا هلا من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقاد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 siare mbolem auditeur ak téléspectateur yu KR FM di siare mbolem ko nga xamanteni ni ci biir dëkk bi muy taw Touba Tor Jander rawatina wa dëkk bu mag di siare mbolem wa kër Serigne Mamar Dia ñi nga xamanteni ño fi nekkal Cheikh Ibra ak Serigne Touba ñu ngi leen di siare bu baaxa baax di leen jox seen way eh, di sante yalla suñu borom bu baaxa baax bimu ñu maye ñu fekke bës bu melni muy bësu safar nga xamni tay moy ñaarel bi fan ci wéru safar mu tombeek ñun ñu koy dex fii ci dëkk bu mag nga xam ni dalil ji yàgg na lool bañ ko dalee def ak léegi waaye bisub tey bi de yëg naa si yëgin woo nga xamante ni mboolem képp koo nga xamante ni bokk nga ci ñi nga xamante ni ñoo ko sasoon tey jii bu la fi fekkee di nga am xol bu sedd ak yaqin ni dëgg ni Serigne Touba moom tànki kanam rek la am ndax amul tànki gannaaw te liggéeyub sëriñ Touba bi nga xamante ni mboolem taalibe yi si lañu si lañu nekk. rawatina tuut tànk yi ah murit yi fi nekk di ay taalibe day wax dëgg yàlla jàmbaar lañ si liggéeyab sëriñ bi sëriñ Touba tey bu leen fekkaatoon si jamono tey jii duñu soppi mukk seeni doxin ndax ñoo ngi nekk ci ndigal yi tey moytu tere yi waa dëkk bi nag képp ku leen xam si loolu nga leen xamee ci yar teggin ci nangu ak taalibe. ay rahmaan rahim ñoo ngi ñaan leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm yéen waa Tor Jandeer surtout maa xale dëkk bu mag mag ak ndaw gu nekk ñëpp. yàlla na leen yàlla defal jàmm seen safar bi ñu di ko def ay safari safar xale dëkk bu mag ànd nañu jubboo nañu nekk nañu benn muy mag muy ndaw lu ngeen man ren yàlla na ngeen man ren lu ko raw si barkab jës bul xuloo jaari batul maraahibu ndax fi ngeen di defee affaire bi fi la sëñ Touba jàppe woon jullee ji mbi jëm xale yi dëkk bu mag nag sëñ Abdou sa sampal leen woon daayira bi ñu commencé woon ci kafteeru kafe ba si xar ba si nag ba si ay gëléem sa kaw sa kanam ñun man na ne ne nun nooy waa jës bul xuloo waa jaari batun malaahibu waa sindiindi da sëñ bee demoon géej bindi jës bul xuloo kon taalibe gi lépp lu ñu si am lu mu néew néew yàlla nañ ko sëriñ bi nangul te téyal ñu ko ci barke Cheikhul Khadim di siyaare nag suñu soxna yi nga xamante ni ñoo nekk si waañ wi nga xamante ni bés bi fu mu toll tey ñoom ñii ñoom ñoo ko fa ñoom ñoo ko fa yeggal di siyaare jëwrin Omar Gueye nga xamante ni liggéey bi yëpp daanaka moom moo ko yore fii si biir kër gi am ci taxawaay taxawaay bu mat sëkk nekk jàmbaar joo nga xamante ni wax dëgg yàlla xoolul kenn ci kanamam rek la xool muy liggéeyal sëñ tubaa liggéeyal sëriñ tubaa nag ci fànn yëpp la kon bu ko defee ñun mbooloo mi ñu gën a góorluwaat gën a feddali suñuy laxasaay te xam ni sëriñ bi kat wax dëgg yàlla bi mu bi mu bi mu ñu bi mu ñu nangulee bi mu ñu nangulee ñu doon ay murit ba pare ndax kenn ku nekk neexu la rek nga doon a murit de ñun ay tànne fi sëriñ bi lañ ndax sëriñ bi dafa ñëw fekk li ci li rasulullahi tànnoon sëriñ bi tànn ca biir loolee ñun buñu fekke fexé nak bo bok ci si ñooñu war gor gor lu baax wara am taxaway bo nga xamanteni moy fonk suñu wajur di len di jaayante si ñoom suñu lay katan yoonu Serigne Touba lepp lo ci nga xamanteni man nga ko tanga man ko jëf nga jëf ko te yalla suñu borom rek tax ab mourid nak da tollu fo nga xamanteni da wara di jëf di jëm sax lu mu manul di ko jëf mouridi fofu lañ tollu jëm lu manul sa yo yoo lo manul serigne bi fekk la fi kon bisub tey bii sëriñ bi def ñu see fekk ndax murid dañoo jéem lu ñu mënul kon jéem nañ lu ñu mënul sëriñ bi fekk nu si rek alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi santaat sëriñ Saaliw bu baax a baax nga xamante ni wax dëgg yàlla ñun tuut tànk yi day moo ñu toqil jamono miinal ñu boppam toqatal ñu si boppam kon alhamdulilahi rabbil alamin waaw bu ko defee ñu góorgóorlu ci ci ci ci ci ñaan salaatu ala nabi ak zikrullah ak jàng xasida ak jàng alquran comme niñ ko tàmbalee woon depuis fan yi ko jiitu ba ci bisub tey bi ah, bu ko defee mbooloo mi ak taalibe yi ñu góorgóorlu si bu baax a baax di wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Kayar FM ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci jataay bi taxawaay bu rafet bi ngeen taxawee ci bés bi ñoo ngi leen ciy gërëm di leen sant bu baax a baax ndax ay at a ngi nii yéen a ngi ànd ak ñun liggéey bi set na sell na rafet na wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maam Cheikh Fall ni ko baal ma naan géej gi mun ko baal ma liggéey su ma ñëwee jaami añ waaye sëñ Tuubaa añ nanu du te duñu xaaraat ni sëñ bee sëñ bi yàlla na leen yàlla defal jàmm dëkk bu ma kër gu ne boo fa nekkee juróom-ñaari mbanaa fa ak ay berneem añ ak reer bu dara manqué wu ndox lépp ba ngaraaf ba ngëyeen ba ngembe tout dëkk bu mag safar bi nag mu nga école ya bu mag bi nag yaa nga fa gëléem yaa nga fa muy mag ndaw yéen da waa dëkk bu mag Sarafat Serigne Touba gis na leen sëñ Abdou Boussa ja gis na leen sëñ Saliou ja gis na leen sa kaw sa kanam rek jàmm rek ngeen di am may sant Baye Birane borom kër gi ak baay Pata Mbaye Dieng ak Baye Birane Gueye ak in ngut Fall ak in Sidi Maxtaar ñépp yal na leen yàlla defal jàmm ak gone yi génn ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp lu ngeen man ren yal na ngeen man den déwén lu ko raw si barke Seydina Mohamed jërë ngeen jëf. amul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 tax naa neex ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina jóge nag ba mbuur ñëw si sant ba suuf sëñ bi rek nag di ñaan yàlla mu sax dàkk nag fii dara jeexu fi moom wax fa dëgg yàlla neex na dara jeexul rek xanaa ñu gën a góorlu rek gën a fas jom gën a góorgóorlu takku liggéey xana def defar safar fo safar mom wax deug ya seigne Touba ko wote ne santale len ma dañuy santale dañuy sante seigne Touba mom dañuy safar bu bés ba dikke ñu dem sa fekk seigne Touba sante santam bi inshallah allah. ñu jema ñu fasiyene takku gor gorlu jappo don benn. lu ñu mën ren yàlla nañ ko mën déwén lu ko raw. ah safar gi moom macha allah xale yi moom tout tànk ñu ngi leen di ñaanal di leen ñaanal fan wu guddax mujj li ñu sémba yàlla nañ ko eggale li ñu man ren bu déwénee na nañu mën lu ko ëpp. nun ñuy noonu seen yaay waaye ñu ngi tey ba ëllëg yokku ba yëkk nag ñaan rek la nu am nag yàlla mooy fay ak Sëriñ Tuubaa yal na leen fay. شكرا بعد هند مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنو أبدا لبي على من بي لخاد سوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما لوسا tax ma déplacement buur ba fii ndax bés bi si loolu nag feesu loolu nag chaque at ñu teewe ak seen Tuuba na man wax nag wax maa ngi ñaax ñëpp nag chaque at yàlla ma doole bi ñu koy defee chaque at waaw ñooy yokk nag yokk ba rek waaw la Tuuba naa ne sax xamuma ko mais maa ko bëgg sama bopp te yàlla rek tax bëgg ko lool nak amas mom ben frontière billahi wallahi dañ ko wara gëna gëna gëna gën fonkat ka ndax sëriñ bi ci bopam lu ci way rek lu nekk da ngay gën di yokku gis nga ablay ciow mo jaar fi ak mbay Ibrahima Diop lam yakun habiban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 قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا لو استهر صلاة الذي لي خاد كوني خليله على من بي لتيب البدو والخدر فتوهات رب العرس أن قد مائبي بجاه الذي باهت بي من ألو مدر رباي في إخدام قيد